Assalamualaikum mbokk yi man la sen general Kayz Fof donc euh, gis ngeen ni mata mi de mu ngi saaga euh, Baye Niass donc dama def vidéo bi ni rek pour apporter sama soutien talibé Baye Niass yépp nga xamanteni euh ñom ñepp xam nañ ci yar ñepp xam nañ ci mandu ak tay ma am ci xarit bo xamanteni euh, muy doomu direct Baye mu ñuy woowee MC Niass mu nekk ki nga xamante ni fonkal sama bopp te dara taxul lu euh, taxaw bi mu taxaw pour sauver réew mi mu am fa taxawaay allah ñu koy rafetlu bu mu euh, ci suñu direct ci suñu chaîne TV boobu ba léegi ñu ngi koy dingat di ko bay saaga bay Niass mi nga euh, référence pour Afrique référence mondiale référence la pour képp kuy musulman donc ñu may ñaawlu wax yi ñuy wax Baye ñas may ñaawlu saaga yu ñuy saaga Baye Niass may ñaawlu saaga yu ñuy saaga doomu Baye ñas mi nga xamante ni moom mooy caatam euh, te sénégalais yépp naw ko sénégalais yépp fonk ko ci dëgg gi nga xamante ni moom moo ko tax a jóg ba indil ñu ay leeral ci mbiru Adji ak Ousmane Sonko donc euh, nit ñu mag ak Macky Sall lañ di saga kilifa diine euh, di sosal kilifa di yak der kilifa diine sa nous yu ñu andul ak Macky Sall képp fitna di la ko tek di la saga, di saga say wajur di la sosal di la ñaaw internet bi de ñu ngi koy ñaawlu torop vraiment di wo Sénégalais yépp ñu mobiliser pour ñu sanctionner Macky ci élection législative taalibe yépp képp kuy taalibe Baye ñas maa ngi lay ñaan nga bañ a votel Macky Sall parce que Fatoumata Fouta Tampi mii lu tax sanctionné wuñu ko c'est parce que ci Macky Sall la far waaye keneen ki nga xamante ni mu ngi Sénégal am sañ-sañu def lii nii état bi dina la doon woo indil la problème boo gisee tey moom amu ci benn problème c'est parce que Macky Sall la àndal donc élection législative yi képp kuy taalibe Baye ñas ñu ngi lay ñaan nga sanctionné li sanctionnel Macky Sall nga sanctionné Mata Fouta Tambi képp ku votel Macky Sall rek ya ngi dolel saga bi ñi saga Baye Niass sos ñuy sosol Baye Niass saaga bi ñi saga doomu Baye Niass mi nga xamanteni tay mu ñom ño représenter image u Baye Niass bu mu démé ba légui donc ñu ngi leen di massaw bu baaxa baax yeen talibé Baye Niass yi di leen nak man ak yeen la le combat continue vraiment nañu continue di xéxal Sénégal jërë ngeen jëf merci beaucoup muy faatu Mata Ndiaye Fouta Tampi moo toog ci ci internet fii ci Sénégal ku toll ni Mawlana Cheikh Ibrahim Niass mu jël baat yu ñaaw yii tuuma bu rëy bii ne Baye Niass taawam bii di Baye may am si mu ne Baye Niass juru ko lii moo gën a garaaw saaga ci ñun lii mu ji mu rey ni ñu dee benn yoon moo ñu ko gën a moo ko fii ci Sénégal léegi nag président Macky ñun talibé Cheikh ibrahim ñooy wax ak yow barki démb amna ku ñaan bara fi la def lay fam en direct bam la saga avant émission bi di jeex dañ ko jël ci ki ñaan Cheikh Omar Diagne barki démb gis nañ ko mo am ci lu ngon wax am député bu mu tuddu jël batu mala tuddé ko ko yobu nañ ko ci yoon arrêté nañ ko ki nak dafa wax li nga xamné ne yow président di ko délé ci Senghor Abdoulaye Wade ba ci Abdou Diouf a ci président yi ñëw dafa tudd koo xam ne moo ñu leen gënal yéen ñetti téeméeri junni yoon mi Mawlana Cheikh a Niass moom la jël baat bi wax ko ko jël baat bu ñaaw bi wax ko ko saaga ñu ñun ñëpp gis ñu état def benn intervention léegi nag li ñu bëgg a wax mooy nii dañ ko def rek kon alerte pour wax ne nag ñun mën nañoo fajal suñu bopp bu fekkee yéen liy war ci ñun defu leen ko parce que ñun ci réew mi lañ bokk te nag yéen a ngi seetaan loo xam ne yéen a ngi seetaan loo xam ne dina taal Sénégal parce que bu ku jóg saaga mag ku jóg kas mag ñi ku jóg déedéel mag ñu appuyé la dinañ taal Sénégal buñ ko arrêté wu. léegi nag mu ngi leen interprété leen wax ni def nañ suñu pexe dañ ko yóbbu ci yoon bu ñoo defee liggéeyam baax bu deful liggéeyam lii premier acte la ñu ngi waajal marche boo xam ne ñun taalibe Cheikh Ibrahima yi lii dañoo ñëw rek leen war du ñun jug mais deuxième marche bi. buntu Kër Baye jëppal la ñuy déparé ba Palante le ministre daal bi Cheikh Ibrahim ba Mauritanie ba Nigéria international jëpp dana ñëw taxaw ñoo xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim du moromu ku yàlla bind. na leer ñun Baye moo ñu gën a suñu bakkan yi gëmu leen ko. gëmu leen ne Baye moo ñu gën a suñu bakkan yi dina leen tudd ci kanam lu leen lu leen ci jëlul mesure pare nañu ñun jox suñu bakkan Cheikh Ibrahim Niass te nag ndaw si fi mu nekk jaaxaluñu xam nañ ko xam nañ tamit actuellement ñi koy escorté di ko garder. bu ñu paree ñun pour ak ci moom bu dee ay junni junni dañuy tëdd ba kenn ak ci moom danañ ko def pour ñu di jël suñu problème wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.